Ousmane Sonko ñi kay pexe toog déglu leen bu baax nag bokk na ci maître Bokar Moussa ci am bokk na ci euh, maître Mamadou Seck maître Mamadou Seck bokk na ci maître Samba Biteye bi nga xam ni bokk na euh, am na convention yu bëri avec l' état moo def rapport bi moo bind rapport bi ki bind rapport pour ñu dàq ko mi ngi tudd maître Samba Bitèye qui a beaucoup de convention avec l'État et qui a fait le rapport contre maître Abdinar Ndiaye am na ci tamit ki ñu naan Demba Ciré Bathily il fait partie du complot Demba Ciré Bathily maître Demba sire Bathily fait partie du complot maître Demba Ciré Bathily waxoon naa leen fi ne leen am na cee ay avocat yoo xam ne ñu ngi ci Ousmane Sonko mais ñu ngi ci gouvernement bi di jokkoog gouvernement bi maître Demba Ciré li man maa ko wax sama je l'assume je l'ai dit am na ñu ma doon wax nag naan ma non moo laa waxal tur yi dama ne loolu information maa ngi ko jëlee ci état bi ne Demba Ciré li est en parfaite cohabitation ou bien euh, cohésion avec le gouvernement sénégalais C'est moi qui le dis haut et fort. Et je le répète, Demba Siré Bakili fait partie du complot. Il travaille avec l'APR. Et ça, c'est des pontes de l'APR. buñ ma ko waxee mat na ba léegi mat na huit mois écoutez bien dama ne lii bo waxoon naa leen ko dama ne mat na huit mois ba neuf mois Demba Siré Bathily bokk na ci complot ñii pour ñu éliminer ki nga xam ne mooy maître euh, naar lii Ndiaye maître euh, naar Ndiaye waxoon naa leen ko il travaille en parfaite cohabitation cohésion en connexion maître Siré Demba Siré Bathily Demba Siré Bathily Demba Siré Bathily voilà waxuma maître Clédor lii wala Demba Ciré Bathily man bu ma la waxee tur rek jàppal maître yi bëri nañ fi junni yoon ak juróom-ñaar mat nañ ay milliards ci réew mi ma maanaam bëri nañ fi kon bu ma waxee benn tur duguma rek tànn ab tur tur tur wax dama ne Demba Ciré Bathily xaw ma ko sax xaw ma kan xaw ma nu mu mel man li jëntuwuma leen intéressé wuñ ma duñ sama maître xaw ma leen mais dama leen daal rapport laa indox Demba Ciré Bathily fait partie du complot ils travaillent tous pour l'APR voilà ils travaillent tous pour l'APR pour éliminer ki nga xam ne mooy maître naar Ndiaye am na Mamadou sekk mi ngi ci complot bi maître Samba Bitey moo bind rapport bi mi ngi ci complot bi Demba Ciré Bathily mi ngi ci complot bi euh, ministre de la justice Ismaïla Madior Fall mi ngi ci complot bi mi ngi ci complot bi ñooy ñëpp ñu euh, ministre euh, ministre Antoine ñàkk jom mi ngi ci ko ñoom ñëpp Dior Diagne mi ngi ci complot bi Dior Diagne mi ngi ci complot bi Aliou Sow mi ngi ci complot bi Aliou Sow ministre Aliou Sow mi ngi ci complot bi parce que le ministre Aliou Sow nga xam ne dafa mus nekk nekk dafa mus a dil ak ci biir rapport bi da ngay gis ni maitre euh, Abdinar Ndiaye a été euh, voilà ki nga xam ne Aliou Sow maître euh, Abdinar Ndiaye ci partem la nekkoon ci partem bras droit am ci partem déglu leen Aliou Sow ministre de la culture maitre Abdinar Ndiaye ci partem la nekkoon Macky Sall moo leen tasaare ndax jamono ju mu nekkee ci partem da doon waxtaan ak Macky Sall mus ñoo réeroo Aliou Sow musul réeroo ak Macky Sall léegi bi nga xam ni mooy Abdinar Ndiaye maître Abdinar Ndiaye dem na ba découvrir peau de bi loolu moo tax mu bàyyi fa génn fa donc jàppale ni maître Abdinar Ndiaye moom ak Aliou Sow ñoo bokkoon benn parti politique mu koy jàppal nekk bras droit am loolu leer na léegi nag bu mu demee ba découvrir ne te Aliou Sow mi gëmu dara mi ngi jokkoo ak Macky Sall di waxtaan ak moom di teg ay consensus di trouver ba mu def ko ministre. donc ci la ki nga xam ne maître Abdou Niar Ndiaye génn xam ni Aliou Sow traître la da ko trahir mu continuer nekk ci barreau bi nekk juge continuer euh, nekk avocat di def liggéeyam donc Aliou Sow bokk na ci ñiy pexeel maître Abdou Niar Ndiaye lobby bu garaaw la. Marème Faye Sall sax mi ngi ci biir maram fay Sall Marème fay Sall Antoine ñàkk jom Demba Ciré Bathily ki nga xam ni mooy Dior Diagne maître Mamadou Seck maître Samba Bitèye Maram Faye Sall ñoom ñëpp ñu ngi bu Ousmane Sonko pour dàq ko convoqué nañ ko pour dàq ko bu leen xaar nag ba fan yi ñëw ñu dàq ko ngeen ñëw na non moo laa waxoon na ko moo laa waxoon na ko man yooyu musiba la ci man parce que man ñaanuma di ko wax muy sorti dama koy wax pour nit yi jóg dama koy wax pour dénoncer injustice dama koy wax pour ngeen jóg dama koy wax pour ñu bind ko ci journaux yi ñu dénoncé ko loolu laaj mais mënuma toog di wax rek ngeen toog xaar affaire bi am yéex yéex yéex yéex ne tëll am ngeen moo waxoon na ko man loolu du sama ngëneel du sa gañewuma ci dara moo laa waxoon na musiba jàmbur ab musiba di dal jàmbur moo laa di wax day dànkaafu bu moo laa di wax ab musiba jàmbur bu ñuy waajal ay nitu pexe toog di ko waajal pour pexeel ko ki nga xam ne mooy maître Abdinaar Ndiaye nga xam ne xamuma ko ci aadama xawuma ko ci awa gisuma ko munuma la wax ni mu mel xanaa lool leer na maa dem ba ci biir gouvernement ba ña ngi réunion suba ak ngoon guddeeg bëccëg rapport yi ma ne ko ragaj kon nu ma ko yàgg defee ñu jox ma rapport yi ma ñëw ne leen eh eh pexe am na ñu lan la comme nu ma ko defee woon euh, seen euh, greffier bi greffier euh, parce que man bokk ci parti bi du ma xam gars yi léegi rek. lu mu tudd dama dama koy fàtte parce que nekkuma ci parti bii du ñu euh, xam nga tey bu ma buggee wax Fou Malade du ma du ma wëri Fou Malade day ñëw sama bopp bi parce que euh, sama élément la ñoo bokk mouvement de bu ma nee kilifa kilifa du ma réer kon bu may dem ci biir politique ba di wax ay tur di wëri c'est parce que jàpp ma ko xaw ma leen xaw ma leen bokkuma maa ñoom parti bo nekkuma ci politique bi doxuma ci politique bi donc nekkuma ci parti milité wu ci benn parti donc munu ma leen xam il faut ngeen may des fois bu ma leen wax ngeen dimbale ma tir tur bi mais dama koy fàtte man dama leen di fàtte parce que xaw ma leen te intéressé wuñ ma tamit ngañ Demba Touré merci beaucoup ngañ Demba Touré merci beaucoup des fois bu may caay rek te la may jàppale parce que yéen a may a dimbale parce que du leen jàpp nekkuma ci mouvement boobu xam rek mm, sama bopp yëpp rab bi rappeurs yi laa xam gars bokk moom mouvement moom ma du ma toog fii di xalaat dip dama ne dip lu ma bugg a wax ci rapport moom awadi ndaw du ma ci duma ci wër donc <laughs> Simon wala du ci wër donc mais ñii bokk ma ñoom mondu moo tax il faut damay des fois damay seen tur yi tëb. donc bu ma ñëwee encore même rapport ba bu ñuy nee dañuy affecté gars yi dañuy bugg a affecté bu ñuy préparé pour bëgg a tëj Demba Touré pas ngañ Demba après ñu décidé ne dañ koy affecté bu ma ñëwee damaa wax même chose noonu laa leen ko waxee. Matam ne leen Matam parce que rapport du fenn. xam nga dëkk bi rëy na mënoon naa wax ban banda fasi lan moo tax ma ne maatam ñu affecté ko même maatam maanaam à cent pour cent information yoo xam ne mu ma ko joxee du am juumeel à pour cent xanaa man ma jéem a bëlëfe dinañ affecté maître Ngagne Demba Touré maatam moom ak ay moroomam ñu ngi ne waajal pour affecter le moo les récalcitrants ñëpp danañ leen affecté di ko liir même chose gouvernement bi changé wul sax xam naa ah gars moo laa moom <laughs> sàcc suñu rapport yi mais moom dof lañ ko jëm xam nga gars yi même buy wax tam gars yi wax gars dañ koy dégg nii rek après suuf bu ñëwee moo laa waxoon na ko. ñoom yooyu lañ def ñoom dañu toog ñoom di reere tant que sax akuma seen ndey ñoom ay information yi non jaaxalu leen boo boo leen demee laaj leen sax loolu la ñu wax daan mais le gars il est informé <laughs> ñoom ñoom seen bopp ñoo ngi koy wax ñeneen ñi le gars il loolu moom loolu ñoom doom doon cay wax dañ koy wax képp bërkaat yi démb rek am na ku ci wax ak. Euh, maître euh, ki nga xam ne moom mooy ministre de la justice même chose la ko wax mu ne ko euh, agent il lui dit que oui ce gars là il est très informé loolu la wax il est très informé loolu la ko waaj wax en même temps il est très intéressé voilà gars yi dañ la suivre il est très intéressé à chaque fois que je lui fais part de tes révélations il me dit que Mollah est très bien informé am na ñoom ñu ngi déglu di gis léegi may sàcc seen i baar di leen wax pour yéen peuple bi ki ngeen préparé wu la pour ñu jéem a xool ñu ko détourné contourné ko xool wala ñu siwal ko affaire bi médiatisé wu nit yi di ci coow ñu daw arrière parce que ay nit kese mais bu ma lu ma sàcc ci dossier wax leen tamit ñoom duñ ko changé parce que dañ naan ah non gars yi day mooy boolaate day wax gars yi déglu nii rek <laughs> mais duñ ci def sax pexe amul problème non jarul changé non jarul changé moom moo naa day wax ni gars dañ koy dégg dañuy xam dégg mais duñ ko changé mais bu fekkoon moo la wax leen dara gars yi jël tàngal yëg yëngal affaire yi mu taxaw ñu ne ah kon wala ñu affaire bi siw ñu def tole dañuy dañuy arrière kon décision yi duñ koy duñ koy appliquer mais dañ koy appliquer parce que amul benn effet bu ma ko waxee tamit dañ koy lu ñu di dem nalaw cons ko kuul ko voilà loolu moo tax ma leen waxoon ne Macky Sall dafa bëgg a tëj Ousmane Sonko tout ça def lu ñuy def cons ko tëj kuul ko voilà donc mais mais il faut ngeen di jóg donc am na keneen ku ñuy waaj a sacrifier dëmm yi Demba Ciré Bathily maître Samba Bitèye maître Mamadou Seck le bâtonnier euh, Marème Faye Sall bi nga xam ne moom dafa dafa saaga ndey dafa sax saaga ndey moom bu ñu ko waxee waxu Euh, kii Abdi Naar dafa saaga nday moom moom ba daf ne katt la ndayam bu baax loolu waxu Marème Faye Sall la katt la ndayam bu baax la wax voilà te bu ma ko waxee kenn ne ko xam nga Abdi Naar Ndiaye mu ne ma waaw ma ne ko demal nga informer ko nee ko gars yi